Euh, ça fait presque deux ans j'ai lancé ligne de vêtements bi tout tudd Niofar Niofar by Milcos en fait euh, am na veste sport am tulle comme bukki sol t-shirt yi euh, plus pantalon lin en fait yii nii genre euh, hors série là quoi parce que on nañ fi collection euh, hiver bi mais jeex na léegi actuellement collection été la ni préparé quoi Moi, tax ma créé quelques trucs ni pour le temps ñuy préparé collection été parce que nous ngi bëgg a def affaire bu rëy pour été bi quoi. waaw collection bu mag bi nga xam collection waaw collection en fait début la quoi collection c'était était pour moi bi ma doon lancé marque bi. C'était en quelle année. Euh, fin décembre 2010. je suis ingénieur en informatique de formation. Mhm. en fait je bi ma paree mais c'est juste que je euh, à la mode quoi en fait déjà j'ai toujours aimé la mode en fait j'aime toujours être bien habillé quoi j'ai un truc mhm. bon c'est ce qui fait que au début dama mon euh, jël un t-shirt des photos taguer sama tour et autres Je commencé à aussi c'était juste pour moi et mes amis quoi euh, les gars ont aimé les gars pourquoi pas élargir le truc c'est-à-dire euh, en faire euh, une ligne de vêtements pourquoi pas après des petits trucs administratifs c'est-à-dire les côtés droit côté affaires et non ba affaires à commencé sortir. Bref, ma lancé en fait c'est-à-dire euh, autofinancement parce que comme côté informatique bi euh, financer euh, côté mode voilà. également informaticien la euh, bi bi bi may bi may bi may bi may tàmbali ay euh, dama doon jël peinture déjà bi may bi may nekk lycée daan naa def peinture c'est-à-dire portrait ak affaire demee noonu dama daan jël peinture di di di bind ci ay yére sama tur wala ci classe yi wala ci en fait sama yére tout souvent quoi léegi affaire bi di dem au fur et à mesure may may performé ci affaire bi euh, di di di def di ko jox sama xarit yi ñu sol et tout

gisoo ci t-shirt bi dama dama traduire ñoo far ci ci ci langue yëpp quoi voilà gisoo ba pare bi voilà ba pare ba pare ba pare dama dama nuñ koy waxee sax dama boole informatique bi ak mode bi fii ku xam informatique xama ni lii euh, kii la HTML la en fait du HTML moom la ñuy defaree sit yi par exemple comme carap bi xam nga site la site la léegi lu ñuy lu ñuy def lu ñuy jël ñu defar site yi langage lañ koy wooyee langage boobu noonu genre euh, fii HTML eh, langage balise la c'est-à-dire moom laa jël ma jéem euh, boole mode bi ak ak informatique bi comme informaticien laa léegi ma ne pour pas léegi gisoo da ngay def nii nga ubbi balise nga def séeréer nga euh, olof nga nga kii ko nga traduire ko séeréer joola nga traduire ko xam nga langue langue yi ma jot a dama jot def benn enquête bu ndaw langue yi ma jot am la traduire quoi après ma ma fermer ko par on ensemble mooy ñoo far quoi waaw ci tubaab. prévoir dans la collection de l'été y insérer euh, des sandales bien, bien de chez nous, cest des sandales faits au Sénégal, mais ce qui seront étiquetés Nyonfar c'est-à-dire des sandales euh, Nyonfar by Mikos. En général, c'est le cuir, c'est-à-dire euh, les sandales à lacets. Quoi. ce, sera du cuir et autres. On, prévoit vraiment de, faire ça. waaw daan la ñoo xare léegi mu ñëw ay carax lay doon quoi. carax góor comme carax jigéen. waaw carax góor comme carax jigéen. waaw am nañ am na yi nga xam ne daal ñoo far la eh, soo ko gisee di nga xam ne lii ñoo far la te fii Sénégal lañ ko defaree. booba boobaa su tàngee sooy sol sa à su tàngee tubaab yi di naan été na nawet defe naa jamono jooju la euh, sooy solu ama nawet day tàng da ngay sol sa t-shirt ñoo far. sol sa pantalon en lin ñoo far sol say charax ñoo far su la neexee sax soy dem plage am dina am ay short aussi ñoo far c'est-à-dire lin short en lin parce que été bi bëggu ñu liggéey ci ay affaire yooyu parce que déjà ñun avancé wu ñu lu bari ci domaine yoy non mais lin lin lay doon en lin lay doon quoi ñoo far mais aussi jot naa fi habillé ay euh, ay yenn animateur ci télé ay ñom pap Cheikh Diallo dama len daan animé temps yu mu doon def Dakar la dox pas dama ko doon solal vest ak body en fait ci la nit ñi gëna xam ñoo far gaay yi di ma wo di naan bëgg nañ ci et tout amna artiste yu bari ay nix concert yu bari dama ko daan solo parce que mom concept ñoo far bi aussi mom jot na sey laal waaw dama ko daan solal ci concert am ay euh, naka lay ko ay gars yu bëri euh, Alassane Dour aussi su su fi nekkee dama la plupart samay day sol samay t-shirt même El Hadj yi dañuy dañuy sol ñoo far quoi. waaw mu nekk plaisir comme en tant que ngay defar loo xam ne fii Sénégal lañ ko def. waaw suñu star yi wala ñi nga xam ni c'est les stars en herbe. buñ solul Dolce and Gabbana ñu ngi sol New York ñu ngi sol yow en tant que sénégalais nañ xam yan jafe-jafe nga am par rapport ak sa pour mu gën a yaatu pour mu gën a parce que par exemple euh, t-shirt yi par exemple en fait fii nii en pour collection bi di ñëw am naa ñi ma ñi ma gis euh, c'est-à-dire mën nañu li ñuy def pour defaral ma t-shirt yi quoi mais bu njëkk da nga doon am problème c'est-à-dire il fallait nga jënd t-shirt yoo xam ne importé la pour def si sa design peut-être veste yi yooyu nga xam ne di nga jënd sa tissu fii nga kii gars ñawal la ko après nga dem gars yi defal la design yi quoi defal tamponné la ko et tout boobu moo moo moo moo moo moo doon gën a jàppale quoi mais au début t-shirt yi il faut nga dem jënd sa t-shirt yóbbu ko gars yi tapé si et tout dafa dama si doon sonn quoi loolu moo nekkoon suñu sama jafe-jafe. ci par rapport ko ndax. écoule waaw ma en man man sama côté bof du ma ne baax na baax na mais. alhamdulilah quoi parce que li li ma li may jot kii yëpp day day gars yi dañ koy dem parce que damay dem ba du ma amati euh, yenn saa yi d'affaire yi day jeex takk. Euh, gars yi commandé ma ma defar jox leen en fait du may bëgg aussi stocké lu bari parce que amaguma amaguma boutique boo xam ne boutique phare bi nga xam ne ñoo far rek lay jaay mais pour le moment mën naa ne alhamdulilah quoi gars yi li may li may defar moom. presque yépp ay dem am na site aussi yu wëri yu ma si jàppale yu jot a def article ci ñoo aussi boosté nañ ma maa leen di remercier waaw de passage waaw. mu mel ni comme car rapide ni mu fi ñëwee. waaw voilà mo euh, car car rapide def ngeen de waaw def ngeen def ngeen nice parce que lii déjà waaw daf ñuy daf ñuy arranger parce que day day tax exemple xamuloon ni ñoo far am na mu xam ni ñoo far am na waaw mu xam ni ñoo far euh, ligne de vêtement la bi nga xam ne fii lañ koy defaree déjà waaw bàyyi Sénégal waaw comme di ko waxee voilà. rapide également di web TV

kii yu bëri dinañu varier couleurs yi dinañu euh motif yi dinañu bari même veste aussi. Euh, c'est-à-dire pour jigéen ni rose orange xam gori té légui sax dañuy sol rose déjà gori tu bëgg nañu rose euh, mauve pour góor yi claire quoi blanc bleu ciel ça dépend couleur yi nga xamné dafa day day attiré quoi parce que été bi gars yi loolu bëgg couleur yu yu vive quoi. Ah. waaw couleur vive waaw. waaw man lu ma jaaxal mooy bi ñu nee mille dama ni non si si costume yi am na mais euh, li li li ma la doon wax am nga li ma la doon wax dama defoon benn break moo tax jotul am costume yu bëri parce que yi ñu defaroon yëpp a jeex. mais tur bi diñ ko bindee. mille mhm. cos waaw. Ah.

mun na def quoi Milkos mooy sama surnom loolu lañ ma ñu bëri moom lañ ma gën a quoi. dina ma jaaxal trop informaticien. Uh-huh. de formation. Uh-huh. ñëw fekk ko ci euh, ligne de vêtement. waaw. waaw man daal ah, man de damay laal ci lépp de li li may def na. également bëgg nga wax ñi nga xam ni. certes uh-huh. dañ am benn formation benn. mais am na yeneen yoo xam ne ñu ngi si ñoom te exprimer. exprimer wuñu ko ah affaire en tout cas looy daal génne ko. affaire moom loolu la quoi loo yëg génne dèjà léegi sax par informatique ngay créer design yu bëri dèjà xaw bokkul mais xaw am na fu ñu laalante waaw am na fu ñu jegante quoi comme daan naa laal peinture et autres da aussi daf may faciliter kii bi quoi day doon genre benn passerelle bi nga xam ne dafa may yóbbu ci mode bi peinture bi bon xaw na jege mot bi tuuti je crois. bëgg nga wax waa les internautes de carrapide.com. Mhm. naka la ñu mën a ku bëgg am ci. ku bëgg am déjà euh, bi nga xam ne moom la ñëpp gën a am Facebook soo tapee ñoofar rek di nga gis déjà affaire yi yëpp pare foofu à partir de foofu di nga di nga mën a commandé quoi. wala nga jël site ñoofar bi ñoofar ñoo euh, tiré day am ñoo tiré far point euh, lescigales point org.

xamaguma collection bi parce que déjà dama élargi styliste déjà ku nekk il faut mu am si ku nekk day day mais pour le jusque là il gëna cher 25000 je peux dire que c'est abordable voilà waaw lu la toute la qui à partir de 15 ça dépend en fait ça dépend aussi ci matière koy parce que vesti du du du du jean quoi